Nous avons organisé à jeunes nous aussi tamit nous avons des surtout aussi je pense bien que nous, euh, avons ngi taxaw du euh, surveillant au lycée de Koumbal en même temps du président de mutuelle de la commune de Latmengue, euh, Ibrahima. D'abord, abord nan ngeen dundee fii Kaolack ak euh, en tant que fonction yi nga xamante ne ni diriger nga ko euh, surveillant au lycée de Koumbal euh, ak li nga xamante doon nga ko muy président de mutuelle de la commune de Latmingué fonction yooyu noonu nan nga koy dundee fii à Kaolack. waaw maa ngi lay gërëm di leen sant ci teewaay bi ak interview bi tout d'abord, abord maa ngi njëkkee ci volet éducation bi man surveillant la au lycée de Koumbal donc liggéey nañ ak Makumba depuis 2016. daanaka vraiment bien que xam nga lycée euh, domaine am lycée conseil départemental la bokk mais Makumba lycée parce que gère mairie euh, école élémentaire la géré lycée ak CM conseil départemental mais moom xoolul loolu saa yuñ ko laajee rek daay def parce que en 2016 am nañ fa journée journée de l'arbre reboisement dans le lycée budget bi daanaka yëpp moom moo ko def indi t-shirt am indi lekk deuxièmement ñun la école bi jox nañu six ordinateurs yo xamné ne ordinateur MP vraiment yo xamné ne ñu nga fa moom la ñuy liggéey ñun surveillance bureau proviseur censeur yëpp ñu nga fa donc mu ngi liggéey temps yi ci débat d'orientation bi rek néna école bi da manqué toilette dana fexé def fa toilette donc ça yuñ ko en tout cas laajee mom dans le dans côté éducation ñun lycée bi mom bien que dépendre ci mom mais mom xolul lool kon vraiment diko gërëm diko ko té xamna voilà, je ay pas interview yi da ngay xam ne Macoumba pas njëriñ kese la moom vraiment docteur Macoumba Je njëriñ rek waaw. wax nga ko léegi indi ay contribution yu bari euh, par rapport ci lycée bi euh, te vraiment mënoon na de ci mais tamit en tant que président du mutuelle bi en fait moi aussi tamit yan contribution la indi ci loolu. de santé bi 2013 lañ ko créé wax chaque année daf ñuy jox subvention bañ commencé ba léegi xam nga <coughs> santé domaine transféré la bien que ci ligne budgétaire bi amul appui à la mutuelle de santé ci acte 3 bi la doga am appui à la CMI couverture maladie universelle mais avant loolu chaque année nous avons une subvention chaque année depuis 2016 chaque année dañuy une subvention Nous moo une jox siège fi ñu nekk ko jox fay courant fekk nañ fa table fekk fa chaise fekk fa armoire mom courant duñ ko fay salle salle biñuy réunion amna clim courant man en tant que président mosuma fay facture courant

bi ma posé sama néna ma légui gérant bi nga xamné yow ya ko doon fay légui mairie bi bolé nako ci personnel communautaire bi légui mom néna mairie bi légui ci chauffeur yak ñu yoré état civil mom sama gérant bi nga xamné mom mo moo nekk ci mutuelle mo fay ne jël na ci personnel communautaire désormais mom moy bugg di fay salaire am chaque mois donc tout ça moom aussi mi ngi koy euh, aujourd'hui tey ngeen am journée de l'excellence de l'inspection donc ngeen parrainé ko euh, pourquoi ngeen ngeen def ko parce que Makumba niveau am dafa passé commune parce que vraiment parce que l'inspection inspection départementale Si ñu wax un ñu demee département département 14 communes la moom mu jiite ci ben donc si ñu jëlee ba pare ko département cela veut dire kon moom euh, passé na commune passé na commune am te inspection bi ngeen wax ne man jàngalekat laa la parce que d'abord j'étais dans les classes kon vraiment duñ dajé journée de l'excellence di département encore ma bokku ci département bi mu ngi melni ni ma ñu ci ñooñu la bok ñi ngi koy organiser parce que éducation la ci éducation parce que ci lay teddee kon bu ñëwee ba ñu jëlee ko tuddé ko journée de l'excellence yoo xamné ne suñuy doom la ñuy parrainer ñun sa à Koumbal am ku ci bok dans mon village natal amna na élèves yoo xam ne nañ ci ñi wara war parrainer ci journée de l'excellence kon mu ngi melni ni ci ci def ci la man ma mom lepp donc vraiment gis nañ ci suñu bop diko ñaanal vraiment euh, action yi muy def mu continuer ko di ko gërëm vraiment dal di gërëm aussi vraiment di xol ñu koy gestu parce que vraiment ku laajte xam na ne Macoumba passé na sa niveau région la ñuy wax fi parrainage yu bari defal nañ ko fi nawétan ak yépp wax dëgg yàlla du département bu ci région bi kon wax dëgg euh lañ na dal vraiment yu bay ci mom xel ku bax la ku mëna joxé la ku am yëg-yëg ci nit la. merci jërëjëf voilà merci beaucoup jërëjëf.